xam ni ñeel na mbirum euh, Prodac. Mm-hmm. Mm-hmm. oui xam nga xam nga xam nga bi ñu bi ñu bi ñu annoncé rek rapport yi dinañ ko génne. Mm-hmm. Euh, si saa si li ñu lu mooy rapport bu deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt un ci jour bi defe naa génn na. Hmm. mais euh, après loolu la ñu gis sortie bu Serigne Bassirou Gueye muy xamle ne euh, lu jëm ci yeneen rapport yi nga xam ne moom moo ci des jox nañ leen délai te fii ak délai boobee ñoom dinañu ko génne. Hmm. démb ci ngoon je pense vers 17h jàpp 18h. Euh, ci la ñu génne ci la ci la ci la ñu publier li nga xam ne moom moo di rapport bu deux mille vingt deux mu mel ni mi ngi ba tey dans cette logique là hmm. li Serigne Bassirou Gueye doon wax ne. li des ci rapport yi dinañ ci liggéey te dinañ ko génn donc rapport 2022 defe naa ni euh, génn na mu mu des bu 2023 donc mu mu mu des euh, yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a topp mm-hmm. mais en tout cas euh, comme ni ma koy waxee à chaque fois c'est important que ñu génn rapport yooyu parce que loolu c'est une manière de réparer injustice bu fi mm-hmm. amoon mm-hmm. ndax ay corps de contrôle nekk ci biir réew mi di liggéey nga ne leen liggéey ñu liggéey du génn loolu moom yaakaar naa ne injustice mënu ko le fait que ñu génn rapport yooyu dina tax ñu mën a lépp leer par rapport ak sujet yu bëri tey rapport bi su génnee yaa gis rebondissement buy am sur l'affaire Covid 19. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen loo xam ne sénégalais xamuñu ko. Covid 19 bu ñu ba ci xam yéen c'est parce que Cour des comptes daanaka. Euh, fa mbir yi mm-hmm. jaaree woon mais tey ji OFNAC sax am na loo xam ne defoon na ko ci liggéey bu mu mm-hmm. ci defoon. et aujourd'hui euh, collectivités territoriales yi itam am na yu bari yoo xam ne nii xew na ci yoo xam ne war nañu ko mën a lijjanti. Mm-hmm. et je pense que tey ji rapport yooyu moo ñu mën a permettre tey justice mën a def liggéeyam déjà qu'on informe le citoyen sénégalais. ba mu xam. Euh, lan moo xew ci ci réewam mais aussi que justice mën a def liggéeyam tey ji procureur ma nga dina jot euh, li nga xam ne moom moo di rapport bi. Mm-hmm. su ko defee la nga xam ne moom moo ci war a doon taxawaaye mu mën ko def. et mm-hmm. à chaque fois. taxawaayu procureur dafay dellu si et je pense que suñuy wax remaniement yaakaar naa ne mbiru mbiru procureur itam c'est quelque chose boo xam ne il faut que ñu ñu ñu lijjanti ko parce mm-hmm. que il nous faut quelqu'un boo xam ne dafay nekk au service de sa nation képp koo xam ne rapport épinglé na la ci loo xam ne xaalisu sénégalais yi la mu mun a am euh, taxawaay doon avocat wu sénégalais yi ngir loolu noonu justice mën ci am mm-hmm. donc loolu moom mooy rôle essentiel bu procureur et bañ a nekk kenn koo xam ne daf fi nekk rek pour le compte de l'exécutif bu fekkee ne nit ki fi nekk euh, par exemple président Diomaye bu fekkee ne waa ji neexawul ak président Diomaye mu dal ci sa kaw bu fekkee ne neexoo nga ak moom mu xool nu mu négocier ak yow je pense que xeetu pratique yooyu moom rupture ba ñu bi ñuy wax foofu lañ ko war a gën a acté mm-hmm. et ce sera important que rapport yooyu yëpp génn dina des nee naa la rapport yu bëri na parce que mm-hmm. suñu waxee ñetti corps de contrôle mm-hmm. yoo xam ne ku si nekk defe naa yaa ngi war a génn lu mat ci cinq cinq années yu tegloo loolu yaakaar naa ne euh, voilà dina nekk loo xamante ne lu bari lu sénégalais doon am ay doute lu bari loo xam ne doon nañ ci am xel ñaar dina dina dina mën a leer ci bëtu sénégalais yi yoon itam mën a jël en charge mbir yooyu def ci liggéeyam ba képp koo xam ne moo xam lu jëm ci wàllu xaalis la moo xam ci lu teguwut ci yoon la lu mu mën a doon ñu mën koo tegaat ci yoon. nan nga gisee li nga xamante ni moom la ñu bëri jàpp muy que ni rapport yi nga xam ne moom la ñuy génnee moo nar a taal réew mi d'autant ñi ñu fal dañoo waroon focaliser wu ci liggéey bi nga xam ne moom lañ leen dénk waaw loolu moom damaa jàpp ne waxu tappale la rek loolu moom c'est-à-dire c'est comme si c'est c'est si c'est ñu ne diw man mënuma comprendre diw dafa jël alalu Sénégal ñu ne bon bu bul topp ki jël alalu Sénégal quoi yow defal li nga war a def rek loolu moom je pense que nit ku sensé sax du ko wax mm-hmm. tey jii dañoo nekk ci réew réew dafa am cest à yu bëri yoo xam ne moo koy doxal parmi piliers yooyu daf ci bokk la justice mm-hmm. c'est-à-dire dafa am loo xam ne soo ko réglé wul imaginez euh, tey jii ce rapport là bi wane ne diw mi mais man mënu ma comprendre dans un pays transparence war a am mu mel ni dafa am ñoo xam ne dañoo bañ transparence mhm. naka lañ nga mën a comprendre koo xam ne dañ ne léegi génne leen rapport waxuñu dem leen jàpp ni tooñ ko tëj ko <laughs> waxuñu dem leen jàpp diw ngeen ngeen ngeen toroxal ko waxuñu nañ dem créer diw waxuñu nañ dem complot diw lenn la ñu wax mooy nañu génne rapport yi ay corps de contrôle ñoo xam ne loolu spécialement moom mooy seen liggéey mhm. mooy di saytu nit ki liggéeyam ndax mi ngi koy teg ci yoon am déet waaw kooku saytu ba pare la mu saytu fi nekkoon jël ko ne loolu du génn kenn du si jot loolu moom ci euh, taabalam la koy teg teg ci cooncoom un président bu ñëw par respect aux Sénégalais euh, ci bëgg li nga xam ne mooy wëyal transparence mu ne rapport yooyu yëpp dafa war a génn te loolu la loi bi wax loolu moo war a am ñële ñoo tere woon loolu am léegi loolu war a am noonu nit man je pense loolu ku si gis problème yow yaa am problème. Mhm. mooy def nañu liggéey wala boog police a ngi enquête la nan la si nit war a war a mën a naqarlu police mi ngi def enquête supposons ñu ne tey ji am na ko ñàkk ba kenam euh, comme le cas de par exemple ki ñàkk ba kenam fan yi passé à Yëmbal. Mhm. ñu ne police mi ngi def liggéeyam. waa léegi imagine nit ku toog naan non non police nañ bàyyi enquête bi ñuy def mais qu'est-ce qui se passe lan mooy mhm. problème bi <laughs> lan na la enquête ba war a déranger ba ngay bañ ñu enquête vraiment loolu mooy sam problème mhm. et tey jii génne rapport mais loolu kay lu ñu war a rafetlu la parce que tey lañ daan gis mooy ay njiit yoo xam ne dañu fi nekk di def lu leen neex ci alalu réew mi mhm. léegi ñooñu daan def lu leen neex ci alalu réew mi bu ñu demee ba taxaw ne kat nañu génne yi nga xam ne moom moo daan saytu bërëbu liggéeyukaay yi loolu kay defe naa dafa war a nekk une bonne nouvelle et d'ailleurs noonu la ko société sénégalaise bi en tout cas la majorité. Hmm. noonu lañ ko accueillir bu fekkee ne nag yow nañu génne rapport daf laa déranger wax dëgg fa yàlla man dama jàpp na yow da nga am sa problème bopp loolu mun moo ko comprendre. d'autant plus que sax. génne rapport ne veut pas dire que dañ leen di jàpp ñoom tëj leen mais dañuy. génne rapport non mais génne sax kan la turam di nekk sa rapport bi. ak lu mais xanaa man kenn kenn du ma fekk fii ne ma yaa ngi si rapport bi de man je nekkuma si mhm. waaw ku si nekk kay c'est parce dañu laa saytu dañoo gis si yow loo xam ne leerul mais kenn neewu la yaa def de waaw dañoo xool ci sa doxalin ñu gis si loo xam ne laaj na leeral ñu ne la kaa ñu leeral ko loolu kay c'est pas un problème ku bëgg a jël rapport def ko problème na wax dëgg yàlla da ngay mujj yow sa bopp nekk problème man du yàgg mukk ba ñu fekk ma fii ne m moomoo kaay rapport baa ngi ni def loo xam ne rapport war na a tudd donc tey jii il su fekkee ne da ngay def opposition. wala danga am sa discours booy tenir mais tu es libre de le faire mais quant à rapport loo xamante ne loolu la yoon tëral. mais ni ñu génne rapport la ñu saytu nga ne loolu kenn du ko fi defee. ñu bëgg ko jël bëgg a leen ak. Ah, askan wi wax ne acharnement mooy lan acharnement mooy yow dañ laa dénkoon lii. lii ñu la dénk kat gis nañ ni xaalis bi xam nga xam nga xam nga c'est-à-dire dans un pays sérieux dafa am noo xam ne noonu la mbir di du doxee. Mhm. scandale mun tawee su nga nekk dans un pays mais lan mooy lan mooy pertinence su créé ñu créé lu mel ni OFNAC créé mhm. lu mel ni IGE lu mel ni Cour des comptes mais loolu suñ ko defee c'est parce que dañoo xam ne nit ñi nga xam ne ñoom lañ dénk dafa soxla une surveillance ci seen ginnaaw. Mhm. topp leen di leen saytu di saytu seen liggéey di xool. et nga xam ne moom la ñu waroon di rafet par exemple imagine scandale yi nekk ci rapport 2019 bi nekk ci rapport 2020 bi nekk ci 2021 bu fekkoon ne bu 2019 génn na ba ñu hmm. sanctionné ci nit est-ce que 2021 2022 2023 même jëf yooyu dina am. déedéet su boobaa ça va servir de leçon léegi nag mais bu am bu 2019 am na ñu ndëpp ndëppal ko. Hmm. mais man su ma tiimee xaalis. ñu ne ma saa yi 2019 bii passé kii de dóor na lu ëpp li ngay waaj a dóor nii mais mujjut fenn mais yow loolu kay mooy saa yi dóoral du mujj fenn c'est sûr mais diggante 2019 ñu ne la am na ay scandale 2020 noonu 2021 noonu 2022 noonu ba 2024 hmm. yow nga jël mbir yooyu noonu teg ko ne kenn du c'est-à-dire ñii sama ay ñooñ lañu dañoo détourné xaalis Sénégal mais man maay président kenn du leen laal loolu lañ mbir mi noonu la doon doxee man maa leen couvrir continuer de faire def leen lu leen neex hmm. mbir mi du mujj fenn foofu lañ nekkoon ak président Macky Sall waa léegi ñu yëkkati kuddu président Macky Sall ne génn leen rapport yi parce que loolu droit wu sénégalais yi la sénégalais dañoo am droit wu xam justice itam dafa war a def liggéeyam ci par rapport ak euh, lu jëm ci euh, enquête yooyu parce que OFNAC nag am na suffisamment de de de de euh, d'outils yoo xam ne moo ko permettre mm-hmm. mu mën def enquête am tranquillement soo liiree par exemple lu mel ni lu jëm ci Prodac nga xool enquête ba na mu demee ni ñu en mais amul sax différence ak ni police ak gendarmerie defee enquête entendre ñëpp déglu ñëpp ku si nekk ñu déglu la def seen conclusion jël ko teg ci table président de la république. Mm-hmm. comme ay corps de contrôle ça dama gëm ne dans un pays. su fekkee da nga bëgg a def euh, promotion njub bu fekkee ne da nga bëgg euh, lépp loo xam dafa jëm ci wàllu corruption lu jëm ci détournement ak yeneen ak yeneen nga xeex ko. Hmm. da ngay dooleel corps de contrôle yooyu. parce que loolu lay gën a dooleel mais dafay nekk tey jii euh, loo xam ne dafay dafay dafay dafay dox diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo yor yenn poste de responsabilité yi ak jël alalu réew mi. Hmm. donc il faut que ñu renforcer loolee képp koo xam ne da ngay bañ nag lu jëm ci jubal. wala jub jubal jubanti gi ñuy wax <laughs> mais jubanti xanaa jubanti mun daweesu nga ne génne leen rapport yi parce yooyu c'est des choses yoo xam ne xew na ci biir dëkk bi et dañ ko war a régler léegi nag boo jàppee ne yow rapport waruñu koo génne wala génne rapport mooy loolu euh, moom mooy da ngaa bàyyi sa ay priorité nekk si yeneen c'est parce que yow dama jàpp ne soit comprendre mais wala boog tu te sens visé par ces rapports là mm-hmm. mais rapport moom fu mu jarree génn rapport dina génn parce que tey euh, coowal coowal euh, li nga xam ne moo di Covid 19 bi ak milliards yooyu nga xam ne daanaka ñu ngi ko doon wax keroog daan ne milliards yi ñu ci dugal non seulement xaalis bi mais en même temps Sénégal bi ñu jëloon en otage nit ñi wàññi seen bërëbu liggéeyukaay yi koom réew mi sooxe fi leneen ak leneen ñëpp boole tey ñu ñëw euh, mbir mi di gën di naan lii xaalis bi fan la dugg fan la dugg tey ñu ne nañu fësal loolu mbirum Prodac gis nga lu mu jur ci mbirum diffamation ba taxoon kii di Ousmane Sonko ñu ñu ñu dindi ko ci li nga xam ni moo di si fichier électoral bi. Mhm. mu doon ay mbir yoo xamante ni tey yaakaar naa mérité na na sa resque ñu ñu ñu wax dëgg bi fan la fiite en fait pour que sénégalais ci boppam nee naa li jëm ci wàllum Covid 19 ak Prodac dafa doon ak 94 milliards yi dafa doon loo xam ne demande sociale la tamit. Mhm. parce que askan wi bëgg nañu xam exactement ce qui se dañoo am droit sax xam xam xaalis bu doon xaalisu mag Sall la saa à fii kenn amul yow kenn amul fi jotu xëy suba di lijjanti xaalis supposons diw doon na xaalisu Macky Sall mais suñu yoon neewu si c'est pas notre problème <laughs> mais xaalisu Sénégal fon maanaam lañ la denkoon nga koy exercer ci fonction moo xam direction la moo xam ministère la mais yow lu sénégalais yi moom nga yoroon. Mm-hmm. waaw lu sénégalais yëpp moom ñu ne li kaay ñu saytu li nga yoroon te nag tëb ñu rek ne dañuy saytu de. corps de contrôle moo ñëw euh, ci benn ci ci euh, de en temps di ñëw di saytu li nga xam ne moom mooy sa liggéey. comme ni ñu koy defee ci am na ñoo xam ne saytu nañ leen te kenn épinglé wu leen. Mm-hmm. am na ñoo xam ne saytu nañ seen mbir xool ba mu jeex ñu xam ne ah kii kat xool nañ ba xool waaye gis ñu lenn loo xam ne nii. Mm-hmm. Euh, war na mën a tax ñu épinglé ko wala ji xool nu ñu nu ñu génnee mbir mi ngir ngir gën a am ay xootal euh, ci euh, doxalinam. Mm-hmm. noonu la ko defee ak ñu bari waaw léegi loolu ñu def ko. supposé euh, ñu am ñenn ñoo xam ne xool nañu seen i mbir waaye seen i mbir gis nañ fa ay loo xam ne jaarut yoon moo xam ay mbir yu doy yoo xam ne gis nañ ko fa loo xam ne mm-hmm. laaj nañ ñu gën ci xóotal laaj nañ ñu mën ci euh, dem ci kanamu yoon ngir leeral ko mm-hmm. waa léegi loolu je pense que euh, tey jii moom sénégalais yi les sénégalais mais mm-hmm. dafa génn nga def micro trottoir wala nga publier si si net bi wala nga xool mais sénégalais yi ils sont tout à fait d' accord ci ñu génne rapport yooyu mhm. da ngay gis nit ñi même imaginer un site bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu génne dugal ci euh, rapportu euh, OFNAC nag 2020 2021 mais ci saa si balaa une heure de temps euh, site bi sax dafa am problème tellement mhm. que sénégalais dañoo songandoo site bi mhm. parce les sénégalais veulent savoir et puis dafa bëri tellement de choses yu xew dafa am yu jaxasoo ci bopp nit ñi mooy Ousmane Sonko nee na euh, Mamour Diallo dossier 94 milliards waa Benno Bokk Yaakaar génn ne Ousmane Sonko soskat la waxkat la il y a des gens dañoo dem ba benn moment sax am na ñoo xam ne ils se sont dit mais Ousmane Sonko day sosal nit ñi mhm. waaw mais loolu li mu li mu li mu def ci ci ci réew mi yëpp dafa laaj ñu leeral ñu leeral ko mais aussi xaalisu Sénégal man dama gëm ne centimu Sénégal bu nekk ku ko ko détourné dañ laa war a teg ci yoon. lu leer imagine ñu ne la ñu nekkoon ci nguuru euh, président Abdoulaye Wade am na si ñoo xam ne jël nañ lu ñu moomul fan la mbir mi mujjee un président Macky Sall bu ñëw def liste de vingt cinq personnes indi teg cré yi ñëw dal si kaw benn Karim Wade ña ca des ñu mën a ñëw jébbalu ñëw jébbalu ci biir parti yoom après c'est léegi xaalisu Sénégal boobu ñenn ñi jëloon fan la mujjee. fenn fenn. <laughs> et c'est ça problème mooy. plus ngay bàyyi loolu mu jàll mais da ngay mooy su ëllëgee keneen dafay defaat la même chose parce que ñi ko mujjoon def mujjul woon fenn bu mhm. fekkoon ne par exemple du temps de Abdoulaye Wade la nga xam ne ni gis nañu euh, euh, benn audit bu sérieux ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon mais teg leen ci yoon pas ay ay mbiru politique wala dal ci kaw kii parce que voilà c'est un opposant politique mhm. mais euh, def mbir yi de sorte boo xam ne sénégalais ils vont se dire ah diw mii de dañu koo woon parce que dafa dafa defoon détournement waaye dañ koo teg lu metti xaalis ba dañ koo récupérer wala quelque comme ça su ko defee kañ ñuy falaat ministre mais il va se servir de leçon ci loolu il va se dire mais kii nga xam ne nii dafa defoon lii lii fii la mujjee mais bu fekkee ne yow da ngaa bàyyi impunité am ci loolu mooy saawaay ñi fi nekkaat nii def leen lu leen mm-hmm. neex du mujj fenn mm-hmm. parce que fëkkale jaar ba ñun ndëpp ndëppal ko mu jàll bu ëllëgee mën ngaa jaarat foofu bañ ndëpp mm-hmm. ndëppal ko foofu la mbir yi war a jëm mooy il faut qu'il y ait des sanctions sanctions yi dafa jëm ci apporter une rupture parce que fii ak yaa ngi bàyyi nit ñi ñuy def yenn yi muy jàll mooy kum neex defal du mujj fenn la neex il faut que ñu teg cest à justice ci kaw nit ñi ba mu diis lu mu metti metti metti mais su euh, bu ñu jógee ci page boobu dafay dina tax bu ëllëgee kenn dootut sañati sax di mhm. laal benn centime ci alalu Sénégal mu nekk aussi un message et puis justice dafa baax ci réew à chaque fois on parle de réconciliation mais justice dafa baax naka nga mën comprendre nit koo xam ne dañ koo dénk liggéey et puis situation bu catastrophique bi nga xam ne si la Sénégal nekk mais saa waay nga jël suñu xaalis dóor ko ba pare ñenn taxaw ci kanamu sénégalais yi ñeme ba dee taxaw <laughs> ñu bu kenn waxu rapport kan la ñu yàpp faut qu'on soit sérieux bu fekkee ne jëloo jëlaanoo amul kenn ku sene ku ñu fiy topp sénégalais yi gis nga euh, bëgg nañu justice mais sénégalais si boppam du ñu nangu ñu jaay kenn doole wala ñuy taqal kenn koo xam ne yoonam newut ci mbir yi et ba nga dalee dégg euh, tur rapport ba léegi wala di ñuy waxu ko rapport am na ñoo xam ne ba léegi déggagoo seen tur la moo tax demuñu dal ci seen kaw ne leen force rapport épinglé ne leen mm-hmm. mais créé wuñu tur ñuy wax c'est des gens yoo xam ne dañoo def dañ leen war a topp et loolu c'est obligatoire. c'est obligatoire <laughs> ñu wax ci euh, li nga xamante ni journal bi fësal na ko mu di ab waxtaan daal bi nga xam ne